torne à des moments historiques. moment historique boobu la i safa di seetaan les Patriotes TV dal leen jàmm si xibaar li gën a si xibaar yi nag gannaaw li nga xamante ne moom moo di Cheikh Bara Ndiaye mi nga xamante ne day def euh, ay analyse yu am solo si li nga xamante ne moom moo di wàllum politique bi Cheikh Ndiaye Ndiaye nag moo ngi dalal bu baax a baax a baax li nga xam ne moom moo di xelu Patriotes yi kat di wax na kat Ousmane Sonko nag amul dara dara loo xamante ne moom moo ko nar baare ba du bokk li nga xamante ne moom moo di di élection présidentielle yi force dina doon li nga xamante ne moom moo di candidat ak plainte buñ ko munta àndil ay sos buñ ko munta sosal rek dina doon li nga xamante ne moom moo di candidat ci élection présidentielle yi donc na kàddu yooyu loolu la Cheikh Bara Ndiaye yëkkati te tamit nee na am na fu mu ko teg bu baax a baax a baax donte tuuma yi ak plainte yi bëri nañ loola waxantu ma ak li nga xamante ne moom moo di plainte Mame Mbaye Niang bi yaakaar nañ kat dina mun a baare Ousmane Sonko waxatuñ loolu beneen plainte nar a tegwaat ci euh, ndoddu Ousmane Sonko bi bi ñu koy wax Frédéric Napel gannaaw bu mu pelante Babacar Touré waxatuñ loolu Ousmane Sonko mu ci